salaamaaleykum li xew tv maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di kontaan si yéen di bég si yéen saa su ne ah tey neex na lool neexati na sax laay wax na si neex la dëkk lii tey moom neex na lool macha allah yéen ci bu baax waa kaawal laala laa doon bëgg a wax rek waaw mareem li tax mu yëpp laala laala moo ko def waxoon naa leen sa premièrement ba def du flu ba dana ko jural lu bare moo tax mareem yéeg si dugg boppam la muy def li muy def yépp mu sañ koo def ndax mareem waroon na jomm moom laala évité ay ganam mu ñëw di jël ci ay seexaat yu kenn xamul même bu fekkee ni diggante mat laala dafa ñagas wala day am am lu fu la gan yi mënoon nañ ko bañ a xam mais wane na boppam foofu waa bu ma jógee foofu ma ñëwaat ci kaawu rakki raki eh, papa ji violé wu papay Jalika moo ko violé pour man te papay Jalika bari na kaay mu def de ndax dafa mel na eh, yaay biram am na en si moom te xam naa ne paa boobu moom bandi la daal rôle yu muy joué bandi dëgg la waaw Jalika nag moom am na mbetteel lool di moo tax sa loxo ndeyjoor sa jar gu wóolu xaritu léegi duñu xarit yàkkamte wuñu lu dul ngëpp puus la ba ñëw toog sa palaas rek lool rek lan bëgg mooy seen àdduna mais lii dana yee ñu bare bàyyi leen di wóolu seen xarit xarit amul xarit amul merci beaucoup. asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa leen di nuyu di leen di ziare ñëpp di leen di wax déwénati baal leen ma àq baal naa leen àq yal nañu yàlla boole jéggal seetaan naa série bi numéro 37. wax dëgg yàlla tey moom daaw na yaram torop daaw na yaram torop torop Marème yërëm naa ko ci bëgg na sëy mais metti na trop ci côté ah, Jalika tamit aussi joor lu ko def metti na torop wax dëgg fa Jalika dama ko yërëm fu mu toll nii lu ko dal metti na torop metti na daa tey dafa yaram torop torop torop sax dafa triste neex na daaw na yaram wax de fa yàlla maa ngi nuyu ñëpp di salaamaaleykum série Maîtresse man moom seen série moom depuis épisode un ba dama koy seetaan quoi dama abonné wu ci site Marodi TV tous les séries yaa ngi daw foofu dama koy seetaan mais moom seen série bi ñaari épisode moo ñaari kii moo ci gën a neex quoi ñaari kaa muy Biram ak Joor ak kaaw on moom ndax Birame dafa nekk artiste te loolu muy suyee mook Dior dafa am solo trop trop ci société bi ñu tool ndax dafa bari trop trop mais ñii ngi naan lu dafa ñaaw dafa salte c'est normal mais loolu pour man sama xalaat am am na ñoo xam ne loolu moom warul ma nekk quoi en tant que xarit ñaari xale yu jigéen sa xaritu jëkkër woon après nga ñëw nga daal koy takk loolu moom doy na trop mais daal ñu ngi ci si jàllale message bu am solo te loolu moo am solo te nit ñaa ngi koy découvrir bu baax ñu ngi koy xool mais man daal su ma sañee moom un moom mu déglu li ko ndaw si di wax am na solo trop waaw yaay jëf Mélodie maîtresse neex na trop te Cheikh Diagne tamit Cheikh Diagne day déglu moom day dégg te dañ koy wax rek mu dégg te rek na damm na ñaareel bu ñaareel bu baax la comme que dem na bay woo. ba dem na bay woo aawo bi di pour bëgg ñu juboo ñu aawo bi bañ aawo bi dem yàq dërëm kon nag Cheikh Diagne ne déglu bu baax a baax liñ koy wax ak xoolaat fi muy teg tànkam ñaari jabaram boo ko yoree il faut doo nekk benn nopp il nga doon ñaari nopp bu fekkee da nga jiit ci kër loolu moom lu am solo la tamit kilifa du duñ ko wax ak ñun lañ ko njëkk wax mu koy ngeen baal ma maa ñëwaat kantaan problème mu Jalika daf ma metti parce que loolu dafa bëri si dëkk bi gis nga euh, série bi li xew si dëkk bi rek la ñuy lii dafa bëri si dëkk bi da ngay wóolu sa xarit mu xamal la lëpp xamal la sa lépp doo ko nëbb sa dara moom tam du la nëbb dara mu xamal la sa vie privée yëpp bis bu jekkoo sa jëkkër da koy nangu looloo dal Jalika mais man li ma koy conseillé mooy na continuer dund dundam te fàtte leen moom tamit na xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg ñaar ñee seen ànd du mës a continuer parce que seen ànd dëgg lalu ko moo tax dëgg lalu seen ànd moo tax Jalika am na lu ko naqari trop man dama am dama am lu ma naqari mais su ko nee muñ naka muñ rek te xam ne lu mu metti metti ak lu mu yàgg yàgg yàgg jëkkëram dina taxaw rëccu lii mu def. Eh, incha allah ci sama xalaat yaakaar naa ne loolu dina am eh, parce que jëkkër ji dafa dafa dafa li mu def dafa ñaaw dafa ñaaw xaritam bi li mu def dafa ñaaw mais Jalika moom metti na nag ndax soog lay doon ci moom mais na góor góorlu rek mu toog continuer dundam te bañ a foowee boppam bu ko defee incha allah lépp loo xamante ni ñooy def nañ ko ñoom ñooy réccu mais moom du am dara lu muy récc incha allah jallika xoolal jàppal rek yow ki nga jàpp jàpp métti na nag ne jàppal fi nga jàpp rek man lool laa lay conseil asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di rafetlu bu baax a baax épisode bi nga xamante ni mooy épisode bu tay bi ñu doon seetaan ni di dellu siwaat ba léegi si laal la parce que laal la moom mën naa ne daal ñu bari xàmmeetuñ ko parce que laal la yi muy def amatul benn benn benn fulla amatul benn fayda amatul classe daal moom ñàkk na classe ba pare parce que tamit yi muy def nii du jikkoy jigéen bu baax jigéen bu baax du sosal moroomu jigéenam fekkente ni óolu boppam bi mu doon wax laal moom mi ngi si moom ah man dama xalaat ne kon dina defee neneen pa di sosal ujjam ak di ko waxal loo xam ni dara du si dëgg parce que lii dafa ñaaw mareem yéegul xamut lu xew nekk ni indil nañ ko problème moo jëkkëram mais laala na xam ne dëgg rek mooy mujj lu mu yàgg-yàgg dëgg rek mooy mujj dinañ dem ba Cheikh Diagne dina xam ni laala li mu wax ni dara amul si yaayam tamit joué rôle kilifa parce que kilifa bu sa doom takkee aawam nga bëgg ko loo ko bëgg-bëgg bu takkee ñaareel même boo ko bëggul maslaawa ak moom ndax ñoom ñaar ñëpp ñoo yem si yow ñoom ñaar ñëpp sa doom ñoo leen fi indi man si sama xalaat bu dama foogoon dama foog ne ñoom ñaar ñëpp la war a yemale waaye bañ kii di ko sosal moom tamit di wax loo xamante ne dara amu ci di crise crise bu xam nga su ko defee Cheikh Diagne moom tamit moom tamit wax dëgg yàlla am na ci part de responsabilité parce que góor bu xasee ba am ñaari jabar day jël ay responsabilité parce que ñu jigéen ñi dañu bëri ay caprice nu ñu neex la ñuy mel parce que suñu xamit xasee ba am wujj moom lu ñu xalaat ne buñ ko defee suñu wujj dina am problème rek ñu si bari boobu du ñëpp mais am na ñoo xam bu ñu xasee ba am wujj bu ñu xam ne suñ ko defee seen wujj dina am problème rek dinañ ko def te Marème dafa nekk genre boo xamante ni moom lu mu xalaat rek day foog ni loolu war na am wala loolu war na ko def bu fekkonte ne am na ku koy conseiller donte lii mu def sax baax na mais du du la koy def day xaar ba ci parce que laal pareegul pour ànd ak moom mais nag Marème day toog xalaat rek ndeysaan daal di foog ni li mu xalaat baax na rek mu daal di def li muy def gis nga li nga ci fekk. mais nag eh, dëgg rek mooy mujj dëgg rek mooy mujj Lalla li mu def ni moom dafa wàccee boppam trop trop sax Lalla ñëpp dañ ko séntu woon fa kawe mu wàccee boppam ba ci suuf. salaamaaleykum salaamaaleykum ça va na ngeen def na yéen si jàmm bu baax naka yitte yi naka liggéey bi naka journée bi na yéen a si jàmm bu baax waaw tey seetaan nañu épisode 37 euh, ans. mais en fait dañ fi am benn jàngat bu ndaw bu ñuy def xam nga si côté maire bi yaayu biram ak biram parce que yaayu biram ak biram euh, bon man si sama jàngat bon peut-être temps si sama gis-gis parce que maire bi mu ngi naan Bakary dafa yaaxa biom dafa yaaxa àddina bon foofu si li ma si mën a jàngat si wax boobu man dama naan Bakary moom moo jur Biram parce que peut-être dafa violé woon mère bi wala daf ko naxoon ba tëdd ak mu jël si ëmb boobu mais man si sama jàngat dama naan Bakary moom moo jur bon loolu laa jàngat si mu tay bi bon su ma ñëwee si côté Jalika bon Jalika peut-être tey comprendre na wax nañ ko xam na mais su ma doon am lu may wax tuuti Jalika dama nagaan mu tourné live am mu tourné view am concentré si gaayen boobu ko bëgg parce que peut-être gis nañ ne bon sey boobu moom moo koy gën a neex que sëyam bu njëkk donc ne concentre foofu fàtte biram aussi parce que su fekkee moom dafa réactionné tey ni mu réactionné comme si que moom ba tey bëggee bi dafa des si côté ak biram dëgg la nag yomb ki nga amul doom ki nga njëkk a génneel moom njëkk xam si góor et tout du yomb nga koy bàyyi mais nag na fàtte biram tuuti quoi bu bëggee am jàmm na fàtte biram tuuti donc biram biram daal <laughs> yu jeew yeneen yi naan biram daal moo fi ne mais man daal dem naa biram daal doo comprendre quoi bon genre nit parce que waxoon naa leen ne biram genre nit yi xamante dañu baax si jigéen ñi ça dañu leen di faj si gauche étroite dañu mën si ñoom si réewanda dañu mën si ñoom si yu bari parce que jigéen ñi bari na si jigéen ñoo xam te ni ki leen di gën a jaay affaire réewanda sax moom ngi ñu gën a respecté kii sëriñ donc loolu tamit c'est bon genre biram yow baax na tuuti si jigéen ñi nañu mais suñu jàngat daal loolu lañ jàngat tey Bakary moom moo jur biram si suñu jàngat tey daal loolu lañ jàngat ci épisode 37 bon maa leen di bàyyi bu baax di leen siyaar di leen baalu àq si weeru koor wi di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne déwén ci fekkee déwén baal leen ñu wax baal nañu leen yal nañu yàlla boole jéggal may ñu fan wu gudd weeru yaram may ñu tamit tan ak fekkee ak man ba ñuy man di xalaat xam di man a dox suñu soxla di mën a waxtaan ak ñu am di jàmm di mën a séq ak ñoom si jàmm ak salaam. parce que jàmm mooy lépp. waaw maa dellusiwaat di waxaat si film bi waaw am na booy bu ma neex si film bi trop nag dama ko fan <laughs> am na gël bu ma ci neex trop trop mais instant bi mu dund lu metti nag parce que tamit ah, sa waay daf ko war comprendre quoi parce que dëgg warul nangu yaayam di ko dugal ci loo xam ne bugg ko mais tamit war ñëpp war nañ mën a xalaat ni kilifa tamit ah, surtout koo jàpp ni sa kilifa la dafa metti tudd sa kilifa mm-hmm. loolu moo si poussé quoi mais man daal ku ma neex la trop trop ci film bi wilaahi waaw salaamaaleykum sama gars yi ziar naa leen bëgg naa leen bu baax waaw di dugg si indi sama commentaire ci film matrice bi muy film bu neex nag macha allah waaw man nag moom li ma siy joxe mooy mu dégg ñi naan laal la ñi naan mareem mais man si seex lay ñëw ak frère am dëgg la rak mën naa bon mais mag warut xàddi ci boor rakam donte bu jeex mais nga tungoom ko tamit mhm. rak la ala kulli aale rak lay doon te yaa ko mën a jàppale pour mu changer voilà merci. asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, maa ngi wax ci film bi euh, théâtre bi am na solo neex na sénégalais yi bëgg nañ ko ci ñoo ngi koy dund mais aawa yi seen dof-dof lu yi ñuy def lan war a ca di wujje waaw parce que kujje moom yàlla moo ko santaane ndax yàlla moo ne góor ñi nan takk ñett ba ñeent waaw bu njëkk sax mag ñi dañ daa takk ba juróom taalool wut taara léegi nag aawa yi moom lànk rek na ñoom rek duñ wujje loolu lan war a bàyyi nag ah yaatal seen ginnaaw yi waaye góor fasu naaru góor la dis koy bokk waaw di wax ci kaw jëlikaa rek lii lañuy wax na xarit léegi amatut àndandoo moo am ndax léegi dangay am sa nit nga yaakaar sa xarit la nga wax ko lu nekk ci yow yépp sa biir privé yëpp nga wax ko xarit boobu dem ba ci biir mu or la ndax instant bii jëlikaa xaritam bi xamal na ko lépp li nekk ci moom ak lim laan dund ak jëkkëram lépp xamal na ko ko mu nekkaat ak moom jëkkëram. te lu ci gën a garaaw mooy du ko comprendre ndax lan la dafa nekkoon xaritam bu jikki ci moom pourtant keroog mu ngi leen ko wax sa waaye lim ko wax moom xamu ko ndax mu ngi leen ko wax ne ko man awma mérité wu ma am xarit bu mel ni yow kon li may mooy ne muñ rek te xam ne xarit moo amatut gis nga nit sa ndeyjoor bi nga xam ne sax mu yaa ko moom sax bu ko wóolu na am sa secret yoo xam ne danga ko koy nëbbal xarit dafa jafe de am na nag ba léegi am na xarit am na ñuy am xarit bu baax waaye xarit ci boppam moo jafe àndandoo moo gën a yomb moo tax nañ moytu bu baax genre yi dal nit ci ay e, cas yu bari yi rek loolu comme genre yi kese la ndax da am sa xarit nga wax ko sa benn secret mu génn weer la wala mu publier lu bari nag loolu ñoom ñoo koy def kon nag di wax ne Jalika ah na muñ rek te mu bañ a amati xarit boo xam ne dangay xamal lépp biiram ak bitim lépp da ko koy xamal. te kim nekkal nii ah na si jàpp ba mu dëgër ndax kii moom ah macha allah ñun daal am nañ ci rafet jox trop moom macha allah <laughs> ah di wax ci rek itam di wax ne ni ngay doxee ak mu safaa neexuñ ndax yow yaa def erreur te Moustapha doon na la jàppale ba instant ba heure bi yow tam doon ko jàppale ba bii kon nag continuer leen ci gën leen ci waxtaan bu baax mu safaa moom moo tax ngay kaf di rey di dugg ci nit ñi. instant bi fi nga nekkoon delluwaat nga fa kon yoo tam am na foo xam ne bu fu fa nit ba jëlee bu war na nga ko delluwaat eh, continuer woon seen dund rek neexoon na trop macha allah erreur la woon rek Moussa Fata yow tam nga ko ngeen xam ne li la woon rek dafa neexut a comprendre nag nit ki nga nekk moom ñëw fekk mu nekkat ak beneen góor neexut a comprendre waaye nag comprendre lu leen noonu rek kontaan nañ trop si série bi daal macha allah temps moom neex na temps moom. Marème def na temps yi moom mu ngi def yu rafet macha allah wax dëgg yàlla temps yi moom gisuñ ci yoo xam ne nit ñi dañ koy mën a critiquer yu métti yooyu kontaan nañ ci daal série bi temps yi moom temps yi moom maîtresse mooy bomb ñun daal kontaan nañ lool ah ci kaw ci kanam rek waa Marodi daal amuñ seen fay temps yi daal yéen a ngi yu neex moom gis ngeen Adja ñëw rek koor gi gis ngeen tam macha allah ñu ngi xaar na yeneen daal incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waa maîtresse nuyu naa leen di leen ziar yéen ñëpp di nuyu képp ku may déglu rek maa ngi leen nuyu di la ziar baax a baax di wax ne bu bi setaan nañ ko am nañ ci contentement trop wax dëgg yàlla di wax ne laal la comme ma la wax kere rek laala jigéen day tëddee njaaxanaay jigéen day nekk yaay seex fas yéene ku ñëw rek rek ne bokk. Eh, wujje moom du dara lu may bokk wërsëg bu la nit wooyee ci jàmm rek woy si ko si jàmm bu la nit ci safaantam woy si ko si jàmm ndax jàmm mooy lépp gis nga da ay wujj da ngay gis ñoo xam ne dañuy mel ni ñoo bokk ndey ak baay du dara du ci góor si ñoom ñaar rek la ndax yow boo jëru defante rek di ngeen mën a dund dund bu neex te nee naa aawo mooy yaayu jëkkër aawa mooy boroom kër gi mooy lépp boo yaatalee rek ku ñëw day xaj day bokk kon nag nañ jéem yaatal te xam ne ak du dara xol ndaw na waaye koo ci xajar rek mu bokk ci xol lum ndaw ndaw koo ci xajar rek mu bokk ci te naa jigéen da yor noppi garmi yow li leen nit wax rek yorol nopp garmi déggee ko lu rafet même bu la waxee lu ñaaw si déggee ko lu rafet dama wax Cheikh na ko lim def ni juum na góor du yor benn nopp nit wax la rek lim la wax nga gëm ko góor du yor benn nopp buñ la waxee da ngay gëstu gëstuwaat bam leer na ne lii kii ko wax nga doog a dam dal ci kawam ni ñu jabar góor du ko yoree jabar góor gu baax du ko mën a yoree ñaari jabar jabar ndax yow nit warul laa wax rek nga dal ci kaw kim la wax day tas kër sa yi bari di am erreur rek genre yi moo koy waral sëy bari di gaaw a tas genre yi moo koy waral moo tax ni danga war a dal waruñ laa wax rek nga tëb dal ci kiñ la wax danga war a ànd ak dal waxtaanee ko yéen ñëpp ngeen lijjanti ko man daal noonu laa ko gisee di wax ne série bi neex na trop waaye noonu daal laa ko gisee man. ça va na ngeen def yéen waa yéen a ngi ci jàmm ma participer ci série maîtresse non mariée. seetaan naa épisode trente sept bi seetaan naa yëpp yëpp yëpp mais lu ma ci lépp daal neex na lépp neex na lépp neex na Moustapha rek moom ñoom moo war a ci ñoom seen seen kii dafa neex quoi parce que dañuy dund naturel wanante wuñ dara dara dara dañuy dund naturellement et puis rak rak yi dafa déglu may ñaan Moustapha rek mu comprendre rak yi nanga koo diglu ñu àndaat oui parce que loo mënta ñàkk ci ànd bu xaman ni seen diggante bu ko waxut bu bu ko kiyee noonu lay demee kon avant moo dem ci invitation paa bi kon dana ko expliquer ni mu demee gisoo bi mu nee ne sax bëgguloon mu gis kado bi dafa ko doon nëbbu lépp ngir bañ seen diggante am benn problème mais su xamoon ne nii lay mujjee kon mu njëkkee ko expliquer ko ne ko dama am rendez ak paa bi nangam nangam. moom nit ki su bëggee moom soo ko waxee dëgg dina la comprendre mais erreur day am nag na accepter erreur bi ñu commencé waat mel nañ melaatoon fii loolu laay wax foofu quoi Cheikh Diagne moom itam góoru ñaari soxna waroo nekk benn nopp da war a am ñaari version door a mën a kii mais bu kenn wax rek nga ñëw dal ci keneen ki te xamoo nu mu demee parce que laal instant da ko bëgg a jaxasee ak Marème quoi moom maire bi ñoo complot pour bëgg a tas sëyam tax ma koy ñaan moom mu dal i buñ ko waxee mu xool balaa muy réagir mu xool li muy def bu baax a baax a baax parce que rek ci day fekk jëf wees loolu laa amoon ci daal ci lu may wax à part ça lépp neex na bureau moom dafa ko quoi loolu tax mu neex ma moom daal moom <laughs> fi muy ñàngalee fi muy yërëm trop fi muy ñàngale benn la quoi mais lim def tamit ñaaw na trop ñaaw na trop trop nga sa xaritu ex jabar nga koy doxaan ba takku ko naay sut quoi parce que ma Jalika mën na jàpp ni ñoom ñaar seen relation yàgg na bi ñuy sëy mën na jàpp ni bi ñuy sëy fekk na ñoom ñuy am relation moom loolu dafa dafa loolu mën na cee nekk te joor su doon man man la ma koy conseil en tant que góor du yàqal sama meilleur ami koo xam ne yéen a defandoo lépp góor du ko yàqal parce que bu mu ñëwee kii la waroon première fois ba rejeté ko mais du dem ba neex neex bi dugg ngay sa commencé sentir biram ba ko roccee ko mënta nekk te mën na ko teel a expliqué Jalika mais waru ko yëgee nii choc choc la ci moom quoi la amante li may wax daal li ma bëgg a wax bari na mais ma bañ fa xaal bu gudd naa ko tënk foofu. ok sama vocal rek baax na merci di def noonu. salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax di leen baaluwaaq bu baax si korité bi ñu jógee di ñaan yàlla may ñu fekk déwén te yàlla nangu ñu suñu jaamu yàlla bu wër a wër maa ngi bëgg a ñëw def sama analyse ci. série bi nga xam ne moo doon daw léegi nii épisode 37 suma juumul euh, maa ngi bëgg a wax ci côté Jalika ndeysaan dama ko yërëm trop trop parce que am na lu ko bett am na loo xamante ni lu garaaw la te lii dafa bëri de lii dafa bëri kaa yi nii dafa bëri barke Serigne Touba dañ lay topp di la yër mooy loolu comme li waa ji di wax rek boo bu ñuy rey say noon say mbokk ñooy njëkk a jeex mooy loolu boo déggee noonu privé mooy joor vraiment aksi bu mu def ñaaw na trop mais nag li nekkul loo xam ne luy soog a am la ci dëkk bi li bëri na trop trop trop si dëkk bi da ngay présenter nit sa copain sax mu nekk ci suuf wala ngay ànd ak sa jëkkër mu yàkkamti ngeen séparé wu ba mu nekk ak moom en tout cas lu ñaaw la lii moom bëgg jëkkër jaru ko te dama jàpp ne nit buy yàkkamti wërsëgam rek yaakaar naa gudd fan da koy jafe donte gudd fan yàlla moo ko yor mais wërsëg bi itam doo ko yàkkamti euh, ma ñëwaat ci côté Lalla Lalla moom aaw man bëgguma wax aaw yi dara ndax sama yaay moo tax mais vraiment li muy def nii ñaaw na lool lool lool lool ay sos yoo xamante ni ay caprice fi mu nekk nii moom mu ngi weer boppam parce que leen lalla dof dof lu na sottiwul lalla yóbbu na doomam euh, hôpital sottiwul lalla évité na ay xaritam ay xarit pour ñu ñëw loolu jàllul léegi fan la jëm ci ay sos ay wax yoo xamante ni amut mooy loolu vraiment Marème Diagne Diagne Nar maa ngi koy mettit lu lii parce que lii lu metti la te Cheikh Diagne itam day mel ni góor bee di nopp la wax chaque jour balaa ngay réagir na nga def analyse nga xam bu baax fi dëgg feete ba pare ngay soog a euh, doxale nii am na loo xam ne balaa nga koy dégg rek lu yenn maanaa neex na xam waaw ndax ku la bëggul moom chaque jour mën na laa sosal loo xam ne nii euh, lu yàq sa sa sa sa dund la vraiment kon maa ngi rafetlu bu baax di jégalu itam ci audio bu gudd bi maa ngi bëgg a dugg ci côté rak yi. rak itam ndeysaan xam naa yàggatul dara ñu xam fi dëgg feete mais nag boo xoolee seen image moom Moustapha nga xam ne euh, mere la rek mais bañ amu fi dañoo bëggante ba léegi te yaakaar naa mbëggeel boobu luy continuer lay doon mais en tout cas daal vie Jalika moom metti na tey torop torop torop maa ngi jéglu bu baax a baax a baax di leen baalu àq di leen baalu àq lu si dëng nag ñu xam ne si man mii di wax la sama motadi la mais su ma sañoon lépp ay rafet maa ngi baalu ak ñëpp wa rahmatullah asalaamaaleykum waa panel bi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di leen balu àq nag ci julli gi ñu jóge te di leen ko baal di sàkku ñaan di leen ñaanal ah ma ñëw na ci suñu film tey bi film bi moom neex na moom neex na trop sax ma doon ci joxe na sama parce que diggante biram ak seex diggante biram ak seex seex na li ma koy conseillé mooy na ko jàppale rek rakkam la lu mu mer mer na ko dimbale rakkam la na amul feneen fu mu jëm ku dul si moom moom la yaakaar waaye na na ko yar bu ko yaree na ba ci kanam na mu dimbale ko na te jàppale ko te xam ne sa sut fenn rakkam la mooy magam daa war a jiitu rek soutenir ay rakkam parce que mooy àddina daal na jàppale ay rakkam bu baax a baax a baax a baax kontaan naa ci lool sax. Marème itam def na su fekkee ne na téléphone bi moom moo woote di saaga juum na foofu moom juum na wax dëgg yàlla juum na foofu moom duma fi ànd ak moom mën na xam na ne nu muy defee na waaye di saaga de menacer moom loolu moom kenn du ko def loolu baaxul Marème na yow laa àndaloon yépp waaye tey moom ànduma ak yow moom wax dëgg yàlla ànduma ak yow seetawaatal solution beneen waaye bii moom doxut Marème loo mën a jàpp na nanga ko bàyyi te nga dem tuubal laal la tuubalal lalla woo ko tuubal ko jéggalu ko jéggalu yaay seex parce que mooy dëgg tey moom juum nga dëgg moom mareem wax dëgg yàlla juum nga waaw ah, rakkitam ah, rakkitam ma ñëw tam ci rakki ak Moustapha Moustapha na jéem a jégga rakki rek te baal ko rakkitam na xam ni Moustapha dafa meroon rek parce que nit ki ak ku mu bëgg il faut mu réagir noonu dégg nga na ko jéem toog ñu waxtaan daal ba trouver solution waaye ni ñuy def nii du xalaat waaw ñoom ñëpp nit ñëpp ngi leen bëgg na di leen seetaan waaw yaayam tam yaayu rakkitam mère bi tam juum na juum na rakkitam bu demee ba xam ni kii mère bi def na ko lu baree baree bari lu ko metti na ko jéggal rek xam ne yaayam la xam ne yaay moom su baaxee yaay la su bonee yaay la waaw loolu la amoon na si lu ma leen lu may xalaat si film bi daal loolu la sama xalaat toolu daal léegi nag ku nekk daal ak li ni koy xalaate daal waaye nag ku fekkee ne wax ji juum naa ci maa ngi jéggul waa panel bi ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi jéggulu jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokk yi def bàyyi nañ si jàmm bàyyi am jàmm maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di di leen baal ci korite di leen baalu di ñaan yàlla suñu lépp ci si jaamu yàlla yàlla na ko yàlla suñu borom nangu si barke Mohamed série bi seetaan naa ko pare tey moom moom tey moom laal moom mere naa ko moom parce que Lalla ni ko Marème wooye ak yi wi mu ko wooyee ak ni mu ko fayee moom baaxul moom Lalla moom dëgg yàlla moom wàcc na loxoom moom parce que Marème bëgg na jàmm mais Lalla bëggul jàmm ba pare wi ñeekuwaat mu ne ko pour ñu nekk si jàmm mu ñeekuwaat dem ni Cheikh damaa saaga saaga sa yaay saaga ñëpp ah nag moom mu ngi yàq dërëb aawa yi nag moom Lalla moom bu aawa yëpp mel ni moom kon aaw moom suur na ko kon aaw yëpp wàcc seen cër dëgg yàlla. laal la mu kii mare moom wax dëgg yàlla xale bu baax la ñaareel bu baax la ndax rôle bi mu joué moom wax dëgg yàlla moom bu ko kii toppee bu ko laala toppee dinañ jubóo mais mel na ni laal la moom moo bëggul jàmm daal laal la moom dëgg yàlla ni ko mën a waxee moom ak kii la aaw bu kii daal aaw bu waye daal moom la moom moom laal la moom aaw bu waye daal parce que aaw moom mooy ndey jëkkër wut a toogee taxawee noonu daal ni taxawee moom paaxul trop dafa war a bëgg jàmm ndax jàmm moom si la lépp xaj te tam noonu la ñu jàppale seen borom kër parce que moom li def jàppale wu seex ndax bi ngi ni seex mer na meer bi feebar na loolu lépp am na ci kon moom jàppale wu borom këram te góor boo ko bëggee mu ne danga koy jàppale doo ko indi problème mukk boo ko indi naqar boo xam da koy am wala dara laal la moom mere naa ko trop trop ngeen nag maa ngi leen sant di leen gërëm kontaan nañ lool parce que da ngeen di yeete wax dëgg yàlla yàqu leen da ngeen defal da ngeen yor seen pusa rek di ñëw kon yàlla yàlla suñu borom jàppale ba lépp lu ngeen bëgg rek ngeen am ko ngeen ñu leen di dégg fépp ci àdduna bi ci àdduna bi yëpp ñu leen fi dégg ci barke Seydina Muhammad jërë ngeen fi yàlla na yàlla dolli jàmm